hello sama gars yi dalalaat nañ leen ci chaîne chaîne YouTube bi ngeen taamu kaay làkk anglais tey suñu leçon dañu indi fifteen contractions in English maanaam quinze ci ay contraction maanaam gàttal ci làkku anglais nekk na nag lu am solo tamit a bàyyi xel ndax dina la gën a dimbali pour nga làkk anglais rapidement est-ce que noppi ngeen ñu dem ay ok sama gars bépp contraction bu ñu indi daañ koy dugal ci exemple su ko defee ngeen daal di mën a comprendre automatiquement leer na bi ñu njëkk am mooy numéro un cannot cannot suñ ko gàttalee lan la ñuy wax can't cannot can't dégg rek fekke doolu wuñ ci not dafay tegtale mën man kon bu fekkee dañ cee dolli not dafay dàq bu boobaa kon dafay dàq mën-mën dégg nga dañuy dugg rek ci exemple yi pour mu gën a neex a firi I can't find my book I can't find my book loolu lan lay tekki mooy mënuma gis sama téere bi mënuma gis sama téere bi dégg nga mënuma yaa ngi dégg mënuma I can't find my book I can't find my book mënuma gis sama sama téere bi li ci ëpp solo nga jàpp can't kon lan la nekkoon cannot kon boo ma neexoon mën naa wax I cannot find my book mënuma gis sama livre bi wala sama téere bi beneen exemple mu ne we can't wait for you anymore we can't wait mënatuñ laa xaar we can't wait for you anymore mënatuñ laa xaar we can't wait for you anymore mënatuñ la xaar we can't wait for you anymore mënatuñ laa xaar kon bu la neexee mën ngox wax we cannot ok bu ñu amee do not lan lañ koy gàttale wala naka lañ koy gàttale dañuy wax don't yomb na lool do not don't do not don't please don't touch that please don't touch that please maa ngi la koy ñaan don't touch that bul laal loolu don't touch that bul laal loolu don't touch that bul mën naa wax do not touch that bul laal loolu ñoo bokk lu ñuy tekki kon don't dañ ko gàttale ci do not I don't understand you I don't understand you comprendrewul ma la dégg nanduma la I, I don't understand you I don't understand you dégg I don't understand you lan la woon kon I do not understand you kon I don't mu gën a gàtt ok ba tey bu ñu amee does not naka lañ koy gàttale dañuy wax doesn't does not doesn't does not doesn't dégg nga yooyu yëpp négation la She doesn't like this dish. She doesn't like this dish. bëggul plat bi. She doesn't like this dish. bëggul plat bi maanaam bëggul xeetu ñam wi. dish dana tekki plat xeetu ñam ni ki maafe plat la ceebu jën plat mbaxal plat la yow ban mooy sa plat seetaan <laughs> ok ba cooking he doesn't like cooking maanaam di togg neexu ko togg neexu ko he doesn't like cooking togg neexu ko he doesn't like cooking togg neexu ko kon gis nga doesn't learn ñu am baneen muy should not should not should not lan la ñuy wax shouldn't should not shouldn't should not, shouldn't. Nikki, you shouldn't be late. waroo tardé. should daañ ko jëfandikoo ci obligation bu ñu waxee naat nag bu boobaa dafay dàq bu ne should muy tekki war nga def nangam bu ne should not dafay tekki waroo def nangam leer na you shouldn't be late waroo tardé you shouldn't be late you shouldn't be late waroo tardé you shouldn't be late kon you ñu gàttal ko ni you shouldn't be late she shouldn't act like that waroo waruta doxalee noonu she shouldn't act like that waruta noonu doxale noonu ñu am could not dañ koy gàttale ci couldn't couldn't could not couldn't she couldn't open the door she couldn't open the door mënul woon a tijji bunt bi she couldn't open the door mënul woon a tijji bunt bi she couldn't open the door mënul woon a tijji bunt bi I couldn't do anything about it mënuma ci war a def dara I couldn't do anything about it mënu mënuma ci wan dara wala nga ni mënuma ci wan dara I couldn't do anything about it mënuma ci wan dara ñu am have not have not dañ koy gàttale ci haven't have not haven't have not haven't exemple nga ni I haven't eaten dinner yet I haven't eaten eaten I yet léeg ñu dagg tii bi bañ ko liir dégg nga bu la nag mën nga wax I haven't eaten dina yet maanaam réeraguma I haven't eaten dinner yet mooy réeraguma I haven't eaten dina yet réeraguma we haven't done the job defaguñ liggéey bi we haven't done the job mu la nekkoon lan we have not yaa ngi dégg done the job dégg kon contraction lañ am ba tey haven't haven't. Alright. ba tey ñu am has not has not dañ koy gàttale hasn't hasn't hasn't niki lan the cat hasn't eaten today muus lekkul tey maanaam ba tey li may waxee ni muus mi lekkagul the cat hasn't eaten today muus mi lekkagul the cat hasn't eaten today moves me like a gultai. She hasn't told me the problem. waxuma problème bi ni may waxee yow nii waxaguma problème bi she hasn't told me the problem waxaguma problème bi yaakaar naa leer na waaye mën nañu am I will ñu gàttale ko ci I'll dégg nga will nee naa la dañ koy jëfandikoo soo fekkee dañuy wax ci loo xam te ni ñëwagul luy war a xew ci jamono yi ñëw kon I will ñu gàttalee ko I'll I will I'll I will I'll niki lan I'll call you later dinaa la woo ci kanam I'll call you later lan la woon I will call you later I'll do my best danaa def li man mën I'll do my best dinaa def li man mën ok waaye ñu am beneen contraction muy they will day well ñu gàttalee ko ci they'll they'll they'll they will they'll niki lan arrive soon danañ yëg balaa yàgg they'll arrive soon dañ yëg si ñoom they'll ok get back home later dañ yëg ci kër gi dañ ñibbisi si balaa yàgg they'll get back home later daañu yëg si ci kër gi maana danañ dellu si get back dégg nga get back home bu la neexee mën nga wax ñibbi bu la neexee mën nga dellu dégg nga si wala nga ni dellu they'll get back home layda dañ dellu si ci kër gi bala yàgg mën nañu am ko ci def nangam dégg nga he will he'll he'll help us with the project he'll help us with the project dinañu dimbali ci projet bi he'll help us with the project dinañu dimbali ci projet bi he'll help us with the project dinañu dimbali ci projet bi he'll go to work he'll go to work dina liggéey he'll go to work dina liggéey he'll go to work ok dina liggéey kon he'll ñu ngi ko gàttale ci lan he will ñu am bane muy there is there is buñ koy gàttal lañuy wax there's there's there's ok niki lan there's a problem with my computer sama the machine bi am na problème yaa ngi there's a problem with my computer mooy am na problème bu nekk sama machine bi sama machine bi am na problème there's a problem with my computer problème am na ci sama machine bi ok kon there's ñu ngi ko gàttalee ci there is ba tey ñu am beneen exemple ci there is ñu gàttalee ko ni there's there's a shirt in the suitcase there's a shirt mooy ab chemise nekk na in the suitcase ci valise bi suitcase mooy valise nga jàpp bu baax ba baax mu daan ni am na chemise bu nekk ci valise bi there's a shirt in the suitcase dañuy dem ci beneen contraction muy who is who is lan lañ koy gàttalee dañuy wax whose who is whose who is niki lan who's coming to the party kan mooy ñëw ca feet ba kan mooy ñëw ca feet ba who's coming to the party kan mooy ñëw ca feet ga who's coming to the party kon lan la woon who is coming to the party who's your best friend kan mooy sa meilleur ami who's your best friend kan mooy sa meilleur mu nekkoon who is kan mooy sa ami kon contraction bi nga bàyyi ko ci forme bu gudd bi du am différence ci maanaam bi maanaam di soppeeku boo ko gàttalee boo ko guddalee moo ci yem dégg nga mais ci wax ji boo ko gàttalee moo gën a gaaw mu gën a noppale aussi you are ñu gàttalee ko your wala your your wala your dégg nga mooy nekk nga nekk you were my teacher wala you're my teacher you are my teacher mooy yaay sama jàngalekat you are my teacher yaay sama jàngalekat lool kon exemple la you are at home right you are at home yaa ngi ci kër gi right n'est-ce <laughs> ok kon da bëgg euh, nit ki confirmer la yaa kër gi wala right yaa kër gi wala mun la waaw maa ngi ci kër gi wala déedéet ok ñu am baneen contraction muy they are naka lañ koy gàttandee dañuy wax there bul wax theyr nag déedéet there there they are mooy ñoom nekk nañ they they are nga ne there they are there okay going to the stadium they're going ñoom ñoo ngi dem to the stadium ca stade ba stadium mooy stade dégg ñoom ñoo ngi dem ca stade ba they are going to the stadium kon they are going to the stadium moom la woon rek ñu gàttal ko daan ni there au they are baneen exemple ci loolu they're working right now they're working right now instant bi ñoom ñu ngi liggéey ana Abdou ana ana nga leen nga ni ko they are working right now instant bi ñoo ngi liggéey wala dañuy liggéey instant bi they are working right now they are working right now ok yaakaar naa leer na dañuy dem ci baneen contraction te mooy bi mujj ci leçon tay bi dañ ci jëlaat nag yeneen leçon ak yeneen contraction dégg nga mooy lan is not is not ci lan naka lañ koy gàttalee isn't is not isn't is not isn't is not isn't comme nga ni it is easy it is easy isn't it dégg yomb na de n'est-ce nga wala déet yomb na wala de ok it is easy yomb na isn't it wala déet ok mu daal ni that isn't mine that isn't mine boobu du sama bos that isn't mine that isn't mine kon ñaar yëpp lan la woon is not ñu gàttal ko ni isn't mu nekk lu am solo lool ma lay loo xel soo ko ma mënee di jëfandikoo dina gën a neexal sa anglais Euh, macha allah aussi itam euh, soo ko jàppee maîtriser ko dina gën a yombal sa compréhension parce que ñu baaree bari rawat américain yi moom la ñuy faral di jëfandikoo suñuy wax ndax lu mu gën a gàtt rek mu gën a neex wax moom jërum guddal dégg nga ñu leen di fàttali képp koo xam da bëgg suñu formation trois mois bi euh, da ngay yónnee message ci numéro bi whatsapp soixante quinze six cent trente quatre trente quatre quatre vingt 75 634 34 98 programme la nag macha allah bu efficace wax dëgg yàlla képp ku ci dugg rek dañ ko xam waaw incha allah rabbi lii mu nekkoon sunu leçon ba baneen yoon goodbye